xoolee euh, génn ñu F24. Hmm. ba tey mais parce que F24 dafa am li nga xamante ni moom moo ñu boole ak moom moom mooy charte yu leer yi nga xamante ni moom moo ñu boole ak moom muy participation inclusive et trans euh, transparente des élections fiche électorale bi ñu respecté ko calendrier républicain bi ñu respecté ko dafa am lu ñu boole ak li nga xamante ni mooy F24 mais dañu gis F24 ña fa ñi fa nekk ñu si bëri seen bopp lañ fa nekkal. ah dañuy waxtaan en plénière. yeewu gis ko ci presse bi foofu ñu ne vraiment te kenn ku ci nekk l'ensemble des leaders yi nekk foofu kenn ku nekk yaa ngi bëgg a doon président yaa ngi dugg di campagne li nga xamante ni moo ñu boole woon au-delà de Aliou Sané ak le coordonnateur Mbodj amul kenn ku koy doxal ñun ñu ne avec le président Amadou Diop Carter ñu ne ñun nag on est des jeunes ñu dañ doon trente mouvements et quelques ak parti politique ñu ne ñun dañu ñun Ousmane Sonko la ñu gis sentir ne moom moo war a doon suñu njiit moom moo war a doon suñu président ñu ne kon nañ def benn force jàppale Ousmane Sonko bokkuñu Pastef on n'a jamais été de Pastef ay mouvement yu nekk ci biir F24 la créé ñun ñëpp ak Ousmane Sonko pour gunge ko. bokk leen Pastef mais yéen merci ñun dañu jug bu ñu jugee créé suñu coalition ay mouvement ak ay parti politique yu nekk ci biir F24 ak yu nekkul ci biir F24 ak yu nekk bitim réew ak ay personnes ressources ñëw fekk si ñu ñu nommé suñu ñu def suñu bureau le président amul Diop Carter jiite ko ñu def benn bureau provisoire def suñu conférence de presse relais won Sénégal yi ne coalition bi juddu na mais ubbil Sénégal yi bëgg a bokk ci coalition bi ñu ñëw bokk ci pour mën a gunge le président Ousmane Sonko boobu Pastef sax waxagul ne moom Ousmane Sonko mooy candidat bi on l'a fait à relais. le 14 juillet passé yàlla def ñu waxtaan ak Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom lañ jël ne mooy suñu candidat xamuñu waa Pastef boobu xalaatu goon sax ndax Pastef nañ ko dissoudre wala duñ ko dissoudre ñun dañu ne dañuy dem jàppale Ousmane Sonko suñu coalition bii di coalition ñun ñëpp ñu nekk Pastef ànd ak Ousmane Sonko ña nga fa mais dañuy indi ñi nga xamante ni ñoom ñooy Sénégal yi nga xamante ni ay sympathisants Ousmane Sonko lañ nekk ci yeneen parti même sax ñi nekk Benno Bokk Yaakaar ñu ubbi leen buntu duñ bëggee ñëw jàppale Ousmane Sonko ñu ñëw àndandoo si ñëpp ñu jàppale Ousmane Sonko waaw dans nos li ñu bëgg rek la ñuy wax ndox gis nañu Ousmane Sonko c'est la solution moom Ousmane Sonko moom mooy moo mën a génne Sénégal yi ci guute yi ñu fi nekk non nekkuñu Pastef. ndaxte mais c'est un peu contradictoire. non c'est pas yaa ngi xalamal Ousmane Sonko après nga ni bokkuñu Pastef. non léegi moom ñàkk a yomb ñàkk a nekk Pastef moom ah. loolu yomb na mën nga ko revendiquer quoi li koy revendiquer dafa bëri léegi. non mon frère pour vous ñun avant que Pastef doon Pastef ñun ñu ngi exister. Mm. ok. vous j'étais j'étais dans Y'en a ma jóge fa créer sama propre mouvement Mbëbës dafa doy bu fa jógee moi je suis un écologiste. non xam nga léegi dafa bëri. coalition bu ma ñëw rek même ma ñëw rek mosu ñu bokk Pastef. gars yi dañuy bàyyi ba élection présidentielle di waaj a arrivé rek après ñu teg seen i ñu rafistole benn benn association. après ñu ne dañuy jàppale diw pour après mën a am ay poste wala wala wu bu baax noonu la ñuy def. mais xam nga li nga wax ni lu leer la te ñu bëri noonu la ñuy def. mais ñun dañu nekk nii bokkoo si. si. ñun li ñu ñor moom mooy Sénégal le Sénégal de demain Sénégal dafa am euh, si tournant bu mu toll surtout le monde surtout Afrique on est conscient de l'enjeu te on doit y participer c'est raison pour laquelle ñu ne dañuy participer mais comment participer on pouvait bokk ci biir Pastef Pastef mënoon nañu dugg ci biir rang mais Pastef. ñun bokkuñu ci Pastef on am suñu autonomie bopp yore suñuy mouvement yore suñuy parti politique créer suñu coalition bëgg ànd ak Ousmane Sonko. ba def suñu conférence de presse. léegi mhm. naka ngeen di jàppale Pastef benn parti la bu nga xamante ni dissoudre nañ ko. moom laa lay wax est-ce que loolu aussi du du du échec ak perte seen temps. non du échec du perte temps ndaxte ñun bi ñuy bi ñuy bi ñuy def suñu conférence de presse ne dañuy jàppale Ousmane Sonko boobu dissoudre guñu Pastef léegi bi ñu dissoudre Pastef Ousmane Sonko instant bi pertagul ay droits civiques ba léegi. dara mënu la ne lii moom moo tax mënul bokk ci élection yi ñun am nañ droit gunge ko ba diñ demee ba nga xamante ne Ousmane Sonko bi nga xamante ni moom lañ moom lañ jël bëgg ko def suñu président bëgg ko ànd ak moom en 2024 mu doon président gëm nañu ne gis nañu ne mënatul doon président yoon ma may ko ko boobaa ñu xool leneen lu ñu def mais pour l'instant tey bi ñun la coalition ñun ñëpp ak Ousmane Sonko ñi ngi ubbil buntu ñi nga xamante ñoo nekk ci biir Pastef te Pastef ñun du surtout que mënuñoo dem nañuy ñëw parce fii nga xamante ni moom mooy la coalition ñun ñëpp doon na coalition bi nga xamante ni parti politique yi fi nekk mouvement yi fi nekk ak personne ressource yi fi nekk am nañ crédibilité te am nañ ay récépissés yi nga xamante mën pour que Ousmane Sonko suba ñu mën koo def